moo des euh, ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr ñëpp nag ba déggee li ni mel bëri na ci ñoo xam ne dañoo am soulagement ne enfin euh, dossier bi ñu daal di koy euh, close Mamour nan nga gisee 72 heures yi nga xam ne doyen des juges daal dina koy annoncé. waaw vraiment si on entend de que dossier bi dañ koy close donc peut-être que nous nous attendons à un non-lieu sur ce dossier-là. Mm-hmm. donc je pense que aujourd'hui quoi qu'on puisse dire ñi ngi xaar avec impatience. Euh, verdict bi nga xam ne doyen des euh, ma xam Diallo war na ko joxe. Euh, mhm. en tout cas je vais pas dire que c'est une très bonne nouvelle mais que suñ ko déggee mu ne dossier bi dina jeex carrément donc je pense que non moom moo si war a am après vraiment ku nekk jàll. si leneen mais mais maamu non-lieu tamit bu amee du tee tamit dossier bi du jeex parce que Ousmane Sonko yi tamit ak ñi nga xam ni ay ñoñam am nañ droit tamit porter war plainte kon dalay wane dossier ba léegi beneen tournure lay am ne dossier Ousmane Sonko Adji Sarr la ñuy wax. waaw mais comme si tu l'as bien dit rek. aujourd'hui euh, s'il y a non-lieu effectivement toutes les personnes euh, qui sont impliquées euh, depuis le début de cette affaire mhm. il faut que ñu euh, vraiment jël leen teg leen ci yoon justice def liggéeyam effectivement mhm. mais en tout cas comme ni ma la ko waxee rek c'est un dossier boo xam ne léegi mu def presque deux ans léegi ñu dugg ci bi il mhm. trop de polémiques concernant cette situation là wax bi bëri na coow li bëri na sonnoon nañu si tout le temps Sonko Adji Sarr aujourd'hui le juge Maham que d'ici 72 heures nous aurons une réponse définitive concernant cette affaire là je pense que dañ koy rafetlu et que c'est une très bonne chose. exactement c'est une très bonne chose mu nekk loo xam ne dañ koy rafetluwaat bu baax a baax mais aussi est que nekkul ne euh, li nga xam ne moom mooy. Euh, audio yi nga xam ne m MC Niass jox na ko euh, Mamou Diallo moo déclenché li ni moo tax euh, juge bi bëgg a pare ci euh, boobu le dossier mën naa ni daal nekk na benn élément boo xam ne bu bu am important la ci li nga xam ne moom mooy ci dossier bi. comme je le disais tantôt vraiment ça a été un déclic. Mhm. aujourd'hui peut-être yenn ojo yi su génnul yoon est-ce que dinañ toll ci stade bi. voilà donc mhm. si les jours damay toog sollicite wala convoque. parce que sa papa dafa ne benn ma ba muy def comprendre nañ ko parce qu'il avait des audios aujourd'hui audio yi euh, avant audio yi di génn toog na wax na y a des choses yoo xam ne euh, ki nga ne ki kiñ ne moom lañ tooñ moom mooy aji Sarr wax na si. Euh, mhm. et si audio yi tu sens que bien vrai que peut-être que lu kaar ay waxam yu bëri méngoowul. Mhm. mais si audio yooyu tu sens que c'est une femme sincère qui parle actuellement. Mhm. jël ay wax yoo xam ne mi ngi koy teg ci nga xam ci ñoo xam ne vraiment ñooñ la doon dégganteel. ñooñu la doon cité si affaire bi nii. ça a été vraiment un tournant important dans la suite euh, de ce processus là aujourd'hui euh, vraiment on se réjouit et aussi encore di jaajëfal ki nga xam ne euh, moom mooy MC Niass parce qu'il a pris ses responsabilités dans cette mhm. affaire là mhm. donc je pense que c'est une très bonne chose quoi qu'on puisse dire aujourd'hui audio yi su yemoon ci juge bi kase peut-être que dina am loo xam ne dinañu umpale mais aujourd'hui gis nañu que audio yi euh, ñu ngi koy commencer di divulguer bien vrai que am na yenn yoo xam ne des na donc je pense que c'est une très bonne chose en tout cas daal on attend avec impatience le verdict bi nga xam ne xam euh, Diallo war na ko joxe mi ngi noonu nag euh, Amath nan nga gisee 72 heures yi nga xam ne daal nañ koy annoncé ngir close boobu dossier bi nga xam ne jamono ji ñëpp moom la ñuy daal di waxtaanee muy dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. tout d'abord dama naan enfin pourquoi en fait parce que dafa nekk loo xamante ni euh, réew mi ñëpp la soxal askanu mhm. Sénégal ñëpp koo wax taxaw toogal lu toll deux deux ans bientôt trois ans mhm. ñu tënk ñu si benn dossier boo xamante ni am na yeneen dossier yu ko gën a critique nekk fii nii ñu ñu def ñu focus si si dossier bi donc il est temps que ñuy ñu mhm. nañuy libérer libérer le peuple Sénégal c'est dafa nekk loo xamante ni ku si nekk yaa ngi ñaan dépassé ko parce que moment ñuy dund ñun suñ sañoon dund yeneen moment. Mm. suñ sañoon 2023 bi commencé ko neneen. lu mais mais mais doyen des juges amoon na yenn preuve yu nga xam ne wala yenn euh, témoignages yi nga xam ci la waroon sukkandiku ngir euh, libérer sénégalais mais lan moo waral mu xaar ba stade bi ni mu soog a jël boobu les décisions. waaw xaj na tamit da doon xool parce que dossier dafa nekk loo xamante ni dafa xaw a sensible nawu na da ngay jël benn décisions si mais dafa wa dafa am processus boo xamante ni da nga ko war a topp. Mhm. parce que eh, boo xoolee eh, éléments yu ñu jot dajale yëpp lu ko mel nii euh, audio yeeg ak yeneen document yi nga xamante ni am na ko. xam bu ñu si defee focus euh, day wone ne kat dossier bii nii kat dañ see bëgg euh, lu leer loo xamante ni une fois que mu joxe moom lu mu war a joxe comme résultat dina am satisfaction ñeel population sénégalaise. kon su la déggee bu baax a baax dossier bi toll ni ni mel moo war a balaa moo jël benn décision euh, daf ca war a saytu bu baax a baax a baax. waaw ah, c'est très normal ah imagine toi yow dossier bi deux ans. Mmh. bientôt ngi nii comme ni ma la ko ngi ëxam askanu ñëpp askanu sénégalais yëpp. donc mmh. donc nañu libéré nañu mmh. libéré donc moom il est mieux placé de nous donner les donc je pense que euh, durant 72 heures. waaw donc na 72 heures j'espère que bareetul. donc nañ xaw rek ba xaar ba xam nan lay naka lay mujjee. fan la waan nañ di mujjee ak ay euh, gëtëm mais Mamour gis nañ itamit ki nga xam ne euh, moom mooy Mamour Diallo daal di annoncé plainte euh, pour Mamour. Ousmane Sonko euh, daal di annoncé plutôt daal di annoncé plainte contre Mamour Diallo ak ñi nga xam ne ñoom la takkaloon dip ñoom la waxoon depuis le début que nañu bokk ci boobule complot kon moo dalay day firndeel li mu wax sànq ne euh, dossier Adji Sarr Ousmane Sonko bu jeexee tamit am na beneen dossier buy ñëwaat ci ginnaawam waaw mooy euh, ni ma la wax rek peut que am na ci côté boo xam ne euh, tout ceux qui son derrière mhm. euh, ce ñi tous ceux qui sont dans ce dossier la ñoom voilà. Euh, ils sont pas peut-être qui qui que ñaanu yaay ñaanuñu yàlla sax mu am non lieu mais mmh. si on voit tout ce qui se passe depuis le début de cette affaire mmh. effectivement ak yi ak vérité bi nga xam ne génn na on a vu le certificat médical il faut le rappeler euh, gis nañ tamit euh, PV de la gendarmerie génn na y a eu des euh, ci ki nga xam ne moom mooy le médecin Alfouseyni Ba yooyu noonu yëpp day nekk des éléments clés des éléments majeurs yoo xam ne vraiment gën a tax nit yi def benn interprétation ci verdict bi nga xam ne juge bi wax na ko joxe léegi nag alors mhm. Mhm. li ma bëggoon wax rek. mooy euh, comme si tu l'as bien dit Ousmane Sonko dafa def. nee nag day porter plainte ak ki nga xam ne moom mooy Mamour Diallo et ñëpp ñi nga euh, xam ne ils sont dans ce dossier parce que moom depuis le début vraiment am na ay tour yoo xam ne mu ngi koy wax je vais mhm. pas dire que c'est des cibles mais euh, suñu sukkandikoo tamit ci kaddu yi nga yi Adji Sarr wax mhm. effectivement Ousmane Sonko a le droit et c'est c'est c'est une obligation sax après non lieu mu def plainte ci ñi nga xam ne ils son euh, cités depuis le début de cette histoire d'ailleurs mm-hmm. parce que il faut dire que aussi euh, vraiment c'est un dossier très complexe il trop de bruit wax bi bëri woon na cool yi bëri woon na à un moment donné il y avait trop de polémique parce que Ousmane Sonko quoi qu'on puisse dire am na ay cadres yoo xam ne ñi ngi ko doon teg ci biir kawam aujourd'hui il est responsable il est leader évidemment s'il y a propos yoo xam ne euh, ñenn ñi wax nañ ko ko il parle de complot il y a pas plus grave pour euh, faire liquider un, un, euh, un, adversaire un, politique. un adversaire politique effectivement Euh, peut-être que dinañ am ay suite concernant exactement euh, ñan la ñan la ñuy euh, cité ci plainte yooyu noonu. mais yow euh, jàpp nga ne plainte boobu parce que Ousmane Sonko gisoon nañ fi plainte na Mamou Diallo ci wàllu 94 milliards. Mhm. te jusqu'à mu mujjul fenn. bu mhm. porté waatee plainte bi est-ce que jàpp nga ne dina am benn suite boo xam ne dinañ ko mën a téye. waaw comme si tu l'as bien dit aujourd'hui dama la koy wax dossier bi jël na beneen tournure. parce que mhm. peut-être beaucoup ne s'attendaient pas à une convocation de Mamou Diallo. bien voilà. amoon na benn bruit euh, concernant euh, euh, convocation boobu noonu ñi mhm. ci tellu ñu ko woon xam mhm. peut-être que amoon na quelques individus yoo xam ne xamoon nañ ko peut-être qui sont vraiment au sein de la justice wala mhm. soit c'est ses avocats mais am na ñu bëri ñoo xam ne yëguñu ko aujourd'hui su ko doyen des juges woowee interroger ko auditionner ko effectivement je pense que dossier bi fu mu nekk nii jël na beneen tournure parce mais yow jàpp nga ne. Mhm. Mhm. Euh, bu Ousmane Sonko plainté ki nga xam ne mooy Mamour Diallo ak ñeneen yi euh, dina am benn suite. d' abord euh, comme que juge bi nee na d'ici 72 heures il va donner le verdict. je voilà. pense que verdict bi su génnee. Mhm. effectivement si Ousmane Sonko euh, fait une plante dina am vraiment ay pour poursuite si situation boobu noonu. ak plainte yi nga xam ne Ousmane Sonko porté woon na ko plainte mujjul fenn. bon concernant les euh, les. les 94 milliards yoo xam ne Ousmane Sonko avait fait une Mm-hmm. bon on ne sait pas exactement fan la situation bi toll mais je pense que sur ce dossier là euh, s'il une plainte encore une fois à l'encontre de euh, Mamour effectivement la justice est obligée de fair son travail et vraiment def ko ci anam yi nga xam ne moom la population bi euh, vraiment di réclamer euh, soit balance bi dafa war a équitable ndeyaa mm-hmm. maa ngi koy wax tout le temps gis nga si dossier bii nii peut-être que am na ay wax yoo xam ne nit peut-être que yow sax di nga ko comprendre après mais la balance n'était pas équitable il y avait trop d'injustice dans ce pays mais aujourd'hui le juge a des moyens de redresser cette balance là mm vraiment ñu ngi xaar te ci euh, dossier bi la ko war a jaarale mais si dossier bi moom la ko war a parce que un dossier qui traîne depuis deux ans Mhm. moom du moom moo yoroon dossier bi depuis le début bien vrai que y a des à son encontre mhm. parce que il faut rappeler aussi euh, depuis le début de cette affaire bi muy soog a door am na ay euh, déclaration ak ay tweet yoo xam ne jotoon na ko def mhm. aujourd'hui peut-être am na ñoo xam ne euh, vraiment am nañ y a des messages qui son quelque part dans leur coin si seen biir bopp aujourd'hui vraiment comme que toll na fii Je ne veux pas dire qu'il est en train de prendre ses responsabilités dans cette affaire, mais nous nous attendons vraiment à un verdict boo xam ne population Sénégal euh, toute cette nation la vraiment moom la ñuy xaar ndeyam. voilà mi ngi noonu nag. mu mm. nekk plainte bi nga xam ne Ousmane Sonko euh, bëgg na ko def euh, plante ko ki nga xam ne mooy Mamou Diallo ak ñi nga xam ne jàpp na ne ñoom ñoo ko comploté ñoom ñoo ko dugal ci mbir mi la ba mbir mi daal di yegg si fii nii nan nga gisee li ni donc ñun dañuy xaar d'abord lan la résultat yi joxe. pare ñu soog a dem si beneen tournir mhm. parce que kenn umpale wut ki nga xamante ni mm, moo di Ousmane Sonko le leader de Pastef lu ñu koy toppee mhm. donc buñ demee ba si bii ba jénnee ay résultats donc moom il a am na droit topp ki nga xamante ni ñi nga xamante ni laale nañ si boobu mbir mhm. parce que kenn umpale wut euh, ne boobu ba léegi deram mu ngi dégg lu nekk si deram donc je pense que il est mieux placé moom pour répondre si ses actes. Mhm. wone que ni kat moom lépp lu ñu ko doon toppee nekku si en plus ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi doon euh, tilimal deram di si teg lu nekk donc je pense que il a le droit euh, de montrer que nii moom euh, lépp li nga xam duñ koy toppee. laale wu si waaye tamit lépp li nga xam ne teg nañ ko si si ndoddam moom war na see mën a kii pour euh, topp ñi nga xamante ni ñu ngi koy teg si deram parce que neexul euh, lu ku mel ni leader ngay aspiré nekk président. Mhm. donc yaakaar naa bu ñu teg yenn yi si sa si sa sa ginnaaw donc war na nekk loo xamante ni euh, loo loo war a topp la si yoon. Mhm. ba ñu régler ko mu mu mu jeex si. mais Amath dañoo gis euh, voilà dañoo gis mhm. euh, d'après euh, li nga xam ne gis nañ ko mooy que opposition bi à chaque fois buñ porté plainte néew na ñuy accepter seen i boobu noonu plainte moo waral ma ne est-ce que Ousmane Sonko plainte am bii nii dina daal di jàll ren bii nii. bu jàll ak mu bañ a jàll moom l'essentiel daal moom na def li mu war a def. mais il faut que ça passe. su defee dans les dans les normes voilà. defee lu mu war a def. parce que justice justice impartialité lay doxal. Mhm. mais warul xool ne kii fii la far wala kee feer la fal. Mhm. justice buñ koy wax. yoon amul kii sama mag la amul kii sama rakk la dañoo war a teg dossier carrément waaw dafa war a équitable mhm. dafa war a jaar si yoon donc je pense que euh, li nga xamante ni ay droit yam la bu ko defee war nañ ko jaarale yoon eh, pour ajouter rek. Euh, voilà. vraiment on a vu que am na délai boo xam ne juge bi joxe na ko. exactement y a des audios qui sont sortis am na peut-être que ñoo xam ne i détiennent euh, certaines informations wala certaines audios je pense que c'est le moment euh, vraiment. de sortir euh, li nga pour askan bi vraiment xam tout ce qui est dans ce dossier là. Mhm. Mm-hmm. comme que MC génn na def na déclaration wax na avec euh, ñi mu waroon waxal il s'est adressé à la nation sénégalaise. aujourd'hui am na ñoo xam ne jox na leen euh, audio yi mhm. on va pas dire que ñoom ñoo ko génnee mais gis nañ audio yi nga xam ne génn nañ fi ndaya les audios sont très importants moo tax man quand j'entends parler certains non audio yi compté wul si audio yi compté na mhm. encore une fois si MC Niass a été appelé c'est parce qu'il détient des éléments je vais dire clés dans cette affaire là mhm. léegi nag comme ni nga ko waxee Adji Sarr am na ñoo xam ne tudd na leen voilà Mamour Diallo on l'a convoqué il a nié euh, vraiment ci euh, accusation yëpp yoo xam ni ñu koy def. Mhm. léegi nag y a des kii qui sont là nañu xaar. audio yi tamit gis nañ Bougane Gueye Dany moom tamit euh, mi ngi wax euh, comme si kuy nié li nga xam ne moom mooy euh, yooyu noonu audio. wala yow turam bi nga xam ne dégg na ko ci. waaw man je ne vais pas me prononcer euh, sur le cas. de Bougane mais comme je l'ai dit depuis le début de cette affaire y a des noms. qui revient toujours le mhm. cas de Mamour Diallo aujourd'hui il a été convoqué bi woo na ko entendre na ko wax na am na ay propos yoo xam ne génn na nit yi relayé nañ ko léegi nag aji Sarr am na ay enregistre am na ay euh, discussion yoo xam ne amoon na ko ak MC Niass tudd na si ay tout donc effectivement aujourd'hui su suñ ko woowee vraiment yoon la maintenant concernant Ndeya la suite de cette affaire là mhm. comme li ma lay wax rek y a des choses plus importantes actuellement mhm. voilà mais gis nga suñu bëggee jàll ci beneen beneen étape il faudra classer ça là encore ñu ñu waroon topp ñu topp leen après ñu concentré wu si essentiel bi man je pense que ça doit être vraiment que le débat. waaw comme comme comme Mamoun waxee rek. parce que mhm. euh, fii justice moo tënk ñëpp. donc je pense que buñ naree nekk fii nii di layam layamee comme nu ko Dame Diop daan waxee. donc mhm. je ne pense pas que ñu génn si. dañoo am justice justice boo xamante ni yoon moo fi nekk ngir jaarale képp ki nga xamante ni jaaroo yoon. Mhm. donc je pense que na justice def lu mu war a def bu ko defee ñun ñëpp ñu delluwaat si jàmm quoi. parce que mhm. sonn nañ quand même. te en plus euh, bi nekk na dossier boo xam ne sénégalais yi dañ ciy wax à chaque fois lépp rek bu euh, doyen des juges annoncé que ne 72 euh, heures dina jeex Ousmane Sonko annoncé ne bu loolu noonu yëpp weesoo dina porter plainte ci nga xam ne mooy Mamou Diallo ak ñi nga xam ne ñoom la jàpp ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw boobu noonu complot mhm. di yoon dina leen daal di déglu mhm. mais laataa loolu rek ñu xaarandi ba xam 72 heures yooyu noonu ba xam bi Adji Sarr Ousmane Sonko dina daal di close te bu njugee feneen mhm. euh, forum euh, de justiciable euh, sénégalais Sénégal du moins moom nag ki nga xam ne mooy Babacar Touré moo ko daal di jiite mhm. moom nag daldi di nay wax ak waa yeewi askan wi di leen wax na leen nañ reporté Babacar Ba autant pour moi moom nag daal nay wax ne nañ reporté li nga xam ne moom mooy concert